may wax suma am mbecte tew fi tay ci Mbàkke lima fi gis dama ci sante yalla bu baax a baax parce que xeyna monsieur le maire wax nako ko dogal bi dajé bi liko sabab dama ci am mbecte parce que dama waxoon responsable région Diourbel nañu tassé Mbàkke pour waxtaan waaye bu ma ñëwee fekk fi mobilisation bu mel nii dinaa sant responsable yi sant militants yi nga xam ne aussi ñëw nañu ce ko comme ni wax ni prétexte bi mooy dañuy am gan ñun région de Durbel, le 28 novembre à ci Kayel le président Macky Sall du président de la République le président de suñu coalition. Je suis kon jaadu na ñun ñi nga sommes ñoo président Macky Sall. ba suñu président su ñëwee ñu teeru ko teeru bu mucc ayib ndax jàpp un honneur la nous ñu ñëw mu ñëwaat région de Ghana, pour célébrer la journée nationale de l'élevage waaye li may wax léegi rek prétexte bi mooy leneen suñu coalition la coalition Benno Bokk Yaakaar mun naa wax sax la mouvance présidentielle dafa soxla yu mel nii dafa soxla animation politique dafa soxla communication dafa soxla unité de tous les responsables te ci lii lay tàmbalee ñu nous fii am bés buy ñëw ñu dajaloo waxtaane ko defandoo suñu nous parlons ci la bés ak yeneen ce bés loolu moo message du président le président Macky Sall le message du président c'est un message d'unité de remerciement de remerciement parce que nous, ñun ñëpp région Diourbel de manière générale nous avons woon le reste du Sénégal le 24 février passé Nous avons eu l'occasion amul occasion responsable pour s'entendre remercier donc le message de remerciement de félicitations et d'encouragement parce que malgré ce particulièrement dans le département de Mbaké, les responsables et les militants lambda ont fait un travail colossal on a perdu les élections mais il faut savoir lire les résultats Le président lire nos résultats. les efforts qui ont été faits ici dans le département de Mbaké. parce que nous avons fini de 2009 ba les résultats yi donc mon vous ko sant na le reste comme j'ai dit c'est un message de mobilisation et d'unité parce que ce nous bëgg jox ko ndam ci fii ci département Mbacké ci région Diourbel de manière générale mun na mais mun na unité de tous les responsables le président nous appelle à l'unité et à l'ouverture nañu ubbeeku dalal ñi ñu bees ñi dalal ñu bëgg nous ñëw ci parti bi ñu bëgg ci coalition pour and ak mom ci liggéey bi donc nañu and ñun bokk ndey parce que suñu andé il n'y a pas d'opposition dans la région de Djourbel ah il n'y a pas d'opposition dans le département de Mbacké s'il y a une opposition ci ñun la suñu biir la mais nak comprendre nañ chaque responsable ku ci nek sa ngay démé ci président Macky Sall donc le message que le président lance au-delà des remerciements c'est un message d'unité ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi parce que mi ngi def ci Sénégal loo xam ne nii buñ ko tegee fii dinañ xam ne kenn masul def loolu ci Sénégal. président am na lu mu def 2012 ba 2019 am na lu mébét ñu tuddee ko liggéey pour ëllëg programme qui nga tuddee 535 5 initiatives 3 programmes et 5 accès universels dinañ ci defaat beneen waxtaan ci région Diourbel dama bëgg ci région de Djourbel ñuy def li ñu def nii tey ay séance séance d'animation de la coalition parce que ñu mën a wax ak responsable yi wax ak sénégalais yi wax ak Diourbelwaay yi li may tudd léegi ne président am na lu mu def ci PS e, am na lu mu naal jëm 2024 loolu ñun ñoo ko war a porter vers les populations li ci des yàlla mooy joxe cër yi parce que lim programme yi mu teg yëpp boo ko jëlee benn par benn Askani, yi les politiciens qui nekk radio yi ak télé di wax askan bi xam nañ le président Macky Sall donc day nous, ñun responsables nous les militants lambda qu'on puisse porter ce débat faire la communication sur les actions du président envers les populations de toute la région de Diourbel donc président amna ay mbébét ci dëkk bi wax ko léegi mu ko

Nous def une fois par mois ou nous avons ak responsable nous ñuy def dans ci département soit Durbel, soit Bambey soit Baké, pour waxtan sur un thème def nañ ko barki avec les cadres du parti avec le président li ñu bëgg moy décentraliser dans les régions on me disait tout à l'heure que région bi ci téggu mais après nous ci wax dox ci pour que région ci téggu mu nekk djourbel ñu au niveau de de prétexte pour que li ñu am le 28 moo taxoon ma ne responsable yëpp daje ñu xool nan la ñuy waajale ku ci nekk ci na nga def na ku ci mobiliser sa waa ñi nga mobiliser pour que ñu dem teeru suñu président de dalal ko mu def journée de l'élevage boo xam ne masul am su ma rak su ma collègue Samba mi dox di ci wax na il fallait donc ñun ñi nga xam on est la partie politique ñu jël suñu wàll suñu wàll mooy ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi joxante la au delà de du 28 nous devons continuer massification coalition continuer continuer vulgariser les réalisations du président de la république ba sénégalais yi xam ak qui li ci nit ñi mën wax ci télé yi ak ci yi ñu xam sur la base d'un programme mi ngi def programme boobu nous